nañ wax benn situation bi nga xam ne dañ ko waxtaanee dans les instances on l'a pas terminé nga ñëw yow jiitu see parce que dans le cadre ñu lay jox cadre ngay wax mën nga wax li nga xam ne moo yéene parti bi mais affiné guñu ko suñu ko affiné nag maanaam tëgg ko ba mu ñor ba bind ko dinañ xam les réalités lu mën a ne. xam nga mun na non xam nga Mamadou Awa Mamadou Awa mënuñu am xam il y a ce que les le team building le team building yi nga yow tey soo doonoon fii nga bëgg liggéey fii il faut que fan nga jëm lan mooy seen ligne rédactionnelle yan nit yan critères journaliste ñoo la mën a yóbbale fi nga jëm. Mhm. c'est la même chose avec ce projet la projet bi mënoo ko tëgg ak ay nit yi nga xam ne jaral na leen seen bakkan jaral na leen dee. jëlal na leen laago ñu am compétence xam fi nga jëm mun la cee gunge nga mun a tëdd nelaw quatre heures du matin suñ la oyee ne la Bathily nga xam ne Bathily mu ngi ci projet bi parce que xam nga fi mu teg projet bi et tu peux le donner à n'importe qui nous le donnons à des gens qui se sont pour ce pays là à yi nga xam ne seen bakkan dañ ko cee teg seen kaso dañ ko cee teg kum jaral dem kaso kum jaral bàyyi sa njaboot kum jaral d kum jaral làgg nga am compétence yi war dañ lay def confiance jusqu'à preuve du contraire man li ma gëm et ñetti mbir yi laa gëm. Mhm. le donner à un patriote ou un allié. jaar yooyu soo ko amul nga jox ko à un Sénégal qui est dans un domaine de compétence bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu ci sut am na domaine yi nga xam ne du caaxaan domaine pétrole ku xam ni ñuy tëggee contrat ku xam ni ci nekk il faut nga jox ko su nekkee kooku amul ci raay yi il faut le donner à un Sénégalais ah. méritant parce que compétence boobu amuñu ko li ma gëmul on peut pas être des jeunes diplômés génnee ci université yu mag yi Ousmane Sonko génnee ñiy génnee ay ikat avec des masters xoolal ma CV yi ban CV ciy gis ruus ñu naan la bac la am wala da doon politique ak parce moo tax ñu jox ko on la dina ñun jeunes on s'est battu pour avoir une alternative générationnelle du sax une alternance c'est une alternative parce que on va changer de paradigme politique dans ce pays là il faut que sénégalais yi xam ne réew mi fii lay jaar changer ba faw euh, qu'on se qu'on se prépare mhm. à savoir que ne on va changer de monnaie mais nag lépp looy def danga nga koy def ci atteindre des objectifs pas par pas du ay affaire euh, euh, doole du ay affaire deretu jeune c'est des yi nga xam ne stratégiquement nga koy teg mais ce pays changera.